mbokki internet Mak TV Sénégal dal leen jàmm seen xibaaru tey yi ñu fas yéene ka tàmbalee nag ak délégation bi nga xamante ni général des Mourides war na ko yebal niki tey jii fii si Ndakaaru Ndiaye Dial muy ki nga xamante ni moo di Serigne Bassirou Porokhane ñoom ñooñee nag war a tasanteeg ñi nga xamante ni ñoom ñooy front de résistance nationale loolee nag bu ñu sukkandikoo daal si journal bi nga xamante ni mooy source a ndiki tey jii lañ war a ñëw fii nga xamante mooy ci Ndakaaru Ndiaye te sax ñoom ñu ngi xam ne rek war nañoo ànd ak sax benn enveloppe bu toll ci cinquante millions de francs CFA cinquante millions yi nag nekkoon xaalis bi nga xamante ne daal kii di xalifa général des Mourides euh, diggoon na ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo amoon ay gaañu gaañu i doom si affrontement yi ko ay bés yi ñu génn doxoon si diggante force de ak ñi nga xamante ñoo di partisan kii di xalifa général des Mourides euh, du si cinquante millions yi doole ko génne na si at si mars deux mars deux 2021 ci lu tolloog 450 millions de francs CFA di ko dimbalee doomu aadama yi ci loolee nag bokk si 200 de francs CFA yoo nga xamante ni génne woon na ko gannaaw ba mbas mi dugg see fii Sénégal tam ko doon yóbbu sax si li nga xamante mooy fonds daal li nga xamante ni mooy 100 euh, yi nga xamante ni génne woon na ko pour dimbali ñi nga xamante ni ñooy commerçant yi nekk foofee ca marché Ocass sax ay lakk-lakk sonaloon leen ak cinquante millions yi nga xamante ni yi ki tey jii ñoo ngi koy xaarandi fi nga xamante ni mooy ci Ndakaaru Njaay Jal Diop ci xibaar yi la ñuy desandi ba tey addu wax ci leneen wax ci li nga xamante ni daal moom mooy jàpp bi ñu jàppoon kii di euh, Guy Marius Sagna ak ay àndandoom moom mooy nag ndiki démb lañ leen waroon di daan di euh, déglu foofee nga xamante ni mooy ca tribunal ba waaye nag dafa mel ni benn nit rek la ñu daal di déglu mu di M Sagna moom moomee sax te ki ko déglu mooy juge bi xamante ni mooy juge troisième cabinet li ba tax na daal ki nga xamante ni moo di Guy Marius Sagna moom it euh, déglu wuñ ko ndiki demb li ko waral nag ki nga xamante ni moo di doyen des juges opposition di Samba Sall moom li ñu jot si ay xibaar mooy que yaramam dafa xaw sutante maanaam dafa xaw wopp ba tax na daal moom moomee dafa absenté jour ndiki démb waaye nag duñu sukkandikoo rek ci xibaar yi nga xamante am nañ ko ndiki tey jii daal lañu war a continuer euh, entendre bi nga xamante ñu war nañ ko déglu ki nga xamante ni di Guy Marius Sagna ak ñi nga xamante ñoom ñooy àndandoom waaye it 24 personnes yi nga xamante ñoom ci xibaar yi la ñuy desandi ba tey sax daal di dem ba caaro yi caaro yi nag ñoo waa caaro yi di jooy seen i doom yi nga xamante ni daal li ko waral moo di ay mool yi nga xamante ni dañoo demoon tukki dañoo demoon euh, fële nga xamante ni mooy ca géej ga di nappi gannaaw bañ demee nag ba tey ñoom it euh, dellu si wuñu mu nekk ki nga xamante ni moo di Malick Kandiaye amoon si tolloog 59 ans ak doomam bi nga xamante ni moo di limaam moom it amoon 30 39 ans ak seen beneen euh, ki nga xamante tamit si famille bi la bokk ñoom ñetti ñooñu ñëpp nekkoon ci benn gaal doon dem uti jën waaye nag ba ñu demee seen gaal ga daal dafa daal di tas ci biir géej gi ba tax daal ñoom ñooñu jamono ji sax ñoo ngi leen doon seet waaye naka ndiki démb daal la ñu daal di for benn koor moo xamante ni daal moom mooy kooru moom naka ñoo ngi ko foree foofee nga xamante ni mooy ca Ngor ci même jour bi sax lañ ko daal di euh, suul foofee nga xamante ni mooy ca même jour bi sax lañ ko daal di suul keneen ki nga xamante tamit daal nañ koy for moo di euh, kii nga xamante ni mooy Modou Mar moom it bokkoon ci kipaas boobee waaye am na beneen nit boo xamante tamit euh, nañ ko waaye waaye moom it kooram dafa mel ni identifié wuñ ko ba tax na daal jamono ji ñoo ngi jàpp ne rek seen beneen doom ba tey mu ngi ci géej gi ñoom nag seen njaboot yi nga xamante ñoom la ñu dëkkaaleel ñoom ñu ngi daal di xam ne rek ndikki aljuma daal la ñu génnoon pour rek daal di dem fële nga xamante ni mooy ci géej pour daal di uti euh, jën pour daat kay jaay gannaaw gi nag la ñu daal di teeraat ay booru 15 heures ba ñu teeree nag ba kosefo ba daal di rek daan li nga xamante ni moom mooy jën boobee lendemain bi nag si samedi la ñu daal di demaat waaye boppi booba tey daal dafa mel ni rek ñëwaatuñu waaye nag am nañu ay information yoo xamante daal seen matériel yi ak seen dambitu gaalo yooyee am na foo xamante ni daal gis nañ ko fa ba jaay jamono ji leer na leen rek ñoom ñooñee accident moo leen dal ci géej gi ba ñu daal di euh, faatu ñu wax ci beneen accident bu doy waat xaw a sax particulier mu di ab oto boo xamante ni moom daal at oto particulier la boo xamante ni daal dafa daw rek ba daal di daanu ci wala sax daal di mbëkk ci miiru école boo xamante ni moom moo nekk fële nga xamante ni mooy ca jëppal dekkale mu nekk rek ab accident boo xamante ni sax mu ngi am ca booru 19h moom daal benn oto la particulier la bu daw rek ba daal di mbëkk eh, bu buntu école bi nga xamante ni moo di école Ibrahima Koyte ni mooy ca jëpp pël mu mel ni rek lu doy waaral nga xamante ni ñu sukkandikoo sax ci ki nga xamante moom mooy nekk foofee nga xamante ni mooy ci école ba ñooy moom moomee sax muy daal di xam ne rek oto boobee dafa daw nga xamante ni mooy ca buntu école ba waaye nag muy daal di xam ne rek ñoom ñooñee amul kenn ku nga xamante ni rek daat na si ñàq bakkanam waaye daal miiru école bi comme ni ngeen koy gisee nii rek si photo yi moom daal la bi daal di mbëkk ba daal di ànd moom ca biir waaye nag ñoom ñuy daal di xam na ni biir oto boobee nag ñaari xale ñoo ci nekkoon maanaam xale yoo nga xamante sax daanaka ñu ngi am ay trentaine d'années rek ñoom ñoo nekkoon ca oto bi waaye nag li ñuy daal di jàpp mooy que ni heureusement ba benn nit rek ñàqu ci bakkanam ba daana lu dul rek miir école boobee nga xamante ni oto bi daal na koy mbëkk ki xam ne loolu nag moom mooy ki nga xamante ni moom maam mooy maam Abdoulaye Tunkara bu ñu jugee ci lool nag dañuy addu wax ci leneen wax ci li nga xamante ni moo di rapport annuel bu Freedom House bi nga xamante ni daal na koy génnee ni ki démb ñoom nag muy daal di xam leen rek kii di euh, suñu dëkk bi nga xamante ni daal moo di Sénégal bokkatul daal si dix pays yu nga xamante ni ñoom mën nañu wax ni daal démocratie dafa daal di am doole ñoom nag ñuy daal ñoom nag ñoo ko daal di xamle di kii le onze bii rek mars bii rek ñu daal di génn ci ab publication boo xamante ni daal nañ koy publier rapport boobee sax di jàngal atub 2020 bi nga xamante ni daal moom lañ ñu daal di génn Sénégal nag mu mel ni bokkatul ci pays yi nga xamante ni daal ñoom ñooy pays yi nga xamante ni démocratie daal nañ ko fi nemmeeku ñoom nag jamono ji si loo bi nga xamante ni moom la nekk mooy ko ni loo bi nga xamante ni mooy euh, ces pays yi nga xamante ni daal ils sont partiellement libres maanaam ñoo nga xamante ni démocratie moom amatu fa doole mu mel ni daal Sénégal daal nay ñàkk lu tolloog 7 points si diggante mille 2017 ak 2020 maanaam mu nekk 71 points yi nga xamante ni rek Sénégal moom daal dina koy ñàkk ba tax na jamono ji daal moom ak ay Malawi Madagascar ak Burkina Faso wala sax yeneen pays yu nga xamante ni ñoom ñooñee ki amatuñu moyen si wàllum démocratie foofee la Sénégal daal di dugg bokk na tamit si ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Kenya waa Nigéria ak waa Côte d'Ivoire loolee nag nekk ay jàngat yu nga xamante ni daanaka euh, si ay borom xam-xam yu bëri daal doon nañ ko wax daal daal di xam ne rek Sénégal jamono ji wàllum bànqaas yi ameetu fi doole muy xaw a rek jox li nga xamante ni moo di dëgg ñoo ñooñee nga xamante ni ñoo ngi ko doon wax lu tollook ay at a ngi nii ñu jóge ci loolu nag daal di wax ci euh, leneen wax ci Sen'Eau Sen'Eau nag moom mooy entreprise boobee nga xamante ni moom la ñu daal di dénk wàllum gestion ak distribution wala sax wàllum euh, jaayub euh, ndox mi nga xamante ni daal moom la ñu war a daal di naan fii nga xamante ni mooy ci zone urbaine yi moom nag ndikki tey si suba rek bu ñu sukkandikoo rek ci ci kii nga xamante ni daal moom mooy Elimane Diouf Elimane Diouf nag moom moomee nga xamante ni moom mooy secrétaire général syndicat autonome des travailleurs de Sen'Eau moom nag muy daal di xam na ni ñoom ñooñee daal nañuy enregistré rek loo xamante ni déficit bu toll si 4 milliards ci suñuy koppar mu nekk nag euh, lu doy waar loo xamante ni daanaka ci wàllum si un kese rek lañ ko daal di ndax kat moom moomee nga xamante ñoom ñooy waa SDE euh, e mu mel ni daal Ilimane Diouf naal moo ko daal xam ne moom sax muy daal naqaru loolee nga xamante ni nay am ba tax sax moom moomee muy daal xam ne rek am na leneen lu nga xamante CNO war na ko liggéey mu di distribution bu nga ndax ñàkku ndox bi nga xamante ni waa dëkk bi daal xaw na am na ñoo xamante ni daal nañ koy ñàkku ndox ba tax na ilimaan sax di naan ñoom ñooñee nag ñoo ngi koy naqaru lool ndax kat loolee nga xamante ni moom mooy ay dëkk yoo xamante ni ñu ngi nekk fii ci quartier bu Ndakaar waroon na ñoom ñëpp waroon nañ am ndox ba tax na daal ñoom ñooñee ñu ngi daal di rek wax nit nañ si daal di def seen kentulaay kàttan pour rek daal di satisfaire ñi nga xamante ni ñoom ñoo di population bi loole nak moo ngi ko doon xam ne gannaaw émission bi nga xamante ni mooy kënu askan wi bu bi nga xamante ni moo ngi ko doon amalee foofee nga xamante mooy ca ITV te ki nga xamante ni moo di El Hadji Malick Cissé doon ko animé

deux mois rek la daal di may ñi nga xamante ñoom ñoo nekk si wàllum si comité bi rek pour ñu daal di concerté wu avant rek ñuy daal di tàmbalewaat li nga xamante ni daal moom mooy euh, dialogue national bi moom nag moom euh, ñu daal di xam ne rek fii ak euh, mercredi bi rek ñu daal di jëm lii di comité de pilotage bi ñoom dinañ daal di am ab réunion bu ñu jugee ci loolu nag dañuy àddu wax ci wàllum tàggat yaram ak ki nga xamante ni moo di gardien équipe nationale bu Sénégal bii di Edouard Mendy te nekk fële nga xamante ni mooy ca club bu Angleterre nekk foofu maanaam Chelsea moom nag génn na daal di ne ni kat match yi nga xamante ni moo war a dox si diggante Congo ak ki nga xamante ni moo di Estonie moom nag du daal di bokk ca équipe bi li ko daal di waral nag mooy que moom dafa def benn opération ci gémmiñ ba tax na daal moom moo ngi daal di génn sax daal xam ne ni match yooyu daal du mën a bokk ndax kat ñi nga xamante ñoo di waa clubam dañ ko wax dañ ko doon amal ab opération boo xamante ni mënul woon a xaar ndax kat duñ ko xaare rek dafay daal di euh, impacté si match yo nga xamante ne ay match yu am solo la yuñ daal di dëgmal ba tax na kii di Edouard Mendy daal moom daa nañ xam ne rek du bokk ci match yooyu nga xamante ni moom moo war a dox si Sénégal ak euh, Estonie wala sax Sénégal ak euh, Congo Brazzaville ak même sax ki nga xamante ni moo di Alfred moom it Alfred Gomis moom it du warul teew ci li nga xamante ni mooy ca ma rencontre yooyu ba tax na daal Sénégal daal si ku moom Aliou Cissé si ku mu mën a daal moo di kii di bi Binguru Camara nekk foofee nga xamante ni mooy ca France baax c'est euh, club bi ñu naan Strasbourg mu mel ne daal euh, équipe nationale bu Sénégal bi doo moytu daal dina am wàllub euh, dina am sax problème ci wàllub camp yooyee ndax kat ñaari premier góolam yëpp duñu dañ leen daal di forfait ci match yooyee nga xamante ni ay match la yu doxoon ci diggante Estonie ak kii nga xamante ni moom mooy kii di Congo Brazzaville waaye nag li si xaw a information bi si xaw a neex mooy que ni Sénégal daanaka moom qualifié na ci Coupe d'Afrique boobee xanaa rek am ay points yoo xamante ni rek li nga xamante ni moo di euh, élimination yooyee mu mel ni naka xibaar yi dañ koy daal di jeexalee rek ak tolluwaay mbas mii di coronavirus fii si biim euh, Sénégal mu mel ni nag euh, lu tolloog 732 tests yoo xamante ni daan nañ koy amal lu tolloog 36 rek ñoom ñoo am doomu jàngoro bi ci noonee nag 15 ñoo nekk ay cas contact suivi nekk ay cas issus de la issus de la transmission communautaire maanaam ñoo xam ne dañu ko wàll te kenn xamul ku leen ko wàll 287 nag patients ñoom nag fañ nañ leen ba ñu wér boor a ni ki ji ñoo nekk ci lalu sauvetage ba su démb nag wàññi nañ si lu toll euh, ñeenti doomu aadama yi nga ni daan nañuy ñàkk seen bakkan gannaaw ba mas mi dugg see Sénégal ba tey nag wàññi nañ si lu toll ak 37 956 cas positifs waaye nag fañ nañ si lu toll ak 35 179 1200 1100 1000 personnes 1020 personnes nag maanaam junni ak ñaar fukki personnes ñoom daan nañ si ñàkk seen bakkan jamono ji ëllëg ak yeneen xibaar seen chaîne YouTube bi di Mak TV Sénégal te leen wax bu leen fàtte di abonné ak di bës cloche de notification bi pour ngeen di mën a am suñuy vidéo au temps réel